lañu ñu bëgg a mooy occupation anarchique état da ci am responsabilité mairie am ci responsabilité lan mooy respons population yi sax léeg-léeg ñu am ci responsabilité lan mooy yi mooy ñoom ñooy transformé léeg seen kër def ko ay magasin ñëwee ko loolu yoon may na leen ci droit tant nag weesu ñu seen kër lan mooy ci responsabilité mairie mooy léeg-léeg li wax. occupation du domaine public ODP waa mairie ñoo koy joxe te léegi dañ ko joxe ba joxe boo xam ne place publique war ñu ko foon joxe ba pare ci fayeeku ay taxe municipale kon loolu mooy responsabilité mairie yi responsabilité état bi mooy seetaan gi ñuy seetaan muy yàgg yàgg yàgg nit ñi di occupé ba mu egg fenn fi bu ñu yeggee foofu nag bu ñu solution dañu war a boo xam ne day ëmb lépp li ma laaj léegi monsieur le préfet mooy est-ce que am na ay mesures d'accompagnement parce que nit bu mu nekk di ci xewlu di ci suturlu boo ko fa jëlee wala boo ko fa bëggee jëlee il faut nga mesure mooy nga proposé ko dara au moins loolu nag jotu fee am ñu koy déplorer man nekkoon na maire ba ma ñëwee Ziguinchor yi ñëpp gis ngeen vidéo yo dama dajale commerçant yëpp ne leen li xew marché bu ko du yoon occupation anarchique du yoon te bu soobee waaye balaa ñu ko fiy jëlee faw man en tant que maire ma ay solution moo tax ma lancé ñetti marché yoo xam ne dañ koy réfectionné ak ñaari marché yu bees yoo xam ne ñuy tabax la te benn bi door na fi mu toll nii loolu wareefu état la wareefu municipalité yi la waaye boo andiwul benn mesure d'accompagnement xëy rek ne damay dindi fi nit loolu mooy andi coow li nga xam ne mooy am moo tax nag ñu ne mbir mi il faut ñu ànd seeg yërmande waxuñu nag ni dañuy def permission kenn ku ne def lu ko neex waaye ñu suñ koy defee tam ñu ànd ceeg yërmande état bi dina proposer ay mesures d'accompagnement la ñuy wax nit ñi mooy suñ leen mën ci proposer tam buñ ko xeeb parce que ñëpp xajuñu ci benn marché ñëpp xajuñu Colobane ñëpp xajuñu Sandaga suñ leen proposer ay mesures d'accompagnement mooy ay bërëb yoo xam ne dinañ ko libérer def koy bërëb yoo xam ne ku newoon tablier wala ambulance nga toog mën a dem na nga dem foofu xam ni sa wërsëg mën na la faa fekk en attendant ñuy réglé loolu yëpp la ñuy ñaan nit ñi mooy ñu muñalante muy population yi riverains yi muy maire yi ñu muñalante fii ak rek nekk ñu situation yoo xam ne day gàllankoor mooy li ñu mënul nangu mooy yoon bu ñu defar ba pare oto war faa romb nit war faa dox nit ñi ñëw bloqué ko trottoir yi mun nañu négocier pour le moment parce que bu ñu toppoon rigueur ñu toj lépp. kon magasin yi dañ koy ñu nekk def nii léeg ak leneen dinañ ko toj kon yërmande moo ñuy permettre ñu régler problème yi ndax lii lépp nag conséquence su échec bu politique publique ñi fa jiitu woon la ndax bu ñu réussir woon politique publique muy mbay mi ak càmb gi ak napp gi ak politique industrielle ñi fi nekk ñëpp kon ña nga seen dëkk toog pour ñëw fii loolu mooy la vérité tey bi ñu commencé càmbar les politiques publiques milliards ñu ne def nañ ko ci mbay mi domaine agricole yi ñaar moo ci fonctionnaire te te 70 pour cent la fonctionnaire yeneen yëpp xaalis bi kenn xamul fu mu dugg. Anida ferme Anida yi kazalika programme xëyu ndaw yi kazalika kon responsabilité état tam daf cee am léegi nag ñii suñu leen teree fii nii am na lu ëpp 150 jeunes yoo xam ne ci lii lañuy liggéey boo leen ko teree lan la ñuy def dem jël baal yi dem tugal wala ñu dem agressé ji. loolu di solution moo tax état bi jël responsabilité am te nag lii compétence su mairie la ma leeral ko du compétence su état bi man mi ba barki démb amoon ni ci xew parce que du compétence su état bi moo tax état bi jël décision te moom it dina jël responsabilité donte mairie yi ñoo am compétence bi la ñu nekk mairie membre dañu ci état kon dinañu xoolaat ni ñu lënkalawaat ak mairie yooyu ba fépp fu ñu war a def lu mel noonu état bi jël les devants ñu xool lu ñuy ak commission départementale yi ñu évaluer situation nit ñi ñi nga xam ne war nañ leen jox ay dédommagement ñu jox leen ko ut ay solution de remplacement balaa ñuy génne kenn bi mu nekk waaye tamit muy lu am solo ci euh, programme bi dañ ko bëgg a doxalee ñu xool euh, diggante riverains yi état bi ak collectivités locales yi lëkkaloo bi ni muy demee ba solution bi ñu ut ñu doon solution boo xam ne day day génn ci ay créer emploi waaye di dem ci euh, annuler ay emploi loolu mooy message yu président de la république mu ne woon naa ñëw waxee ko fii fii nag prétexte rek la woon waaye ñu ngi koy waxee fii mu jëm ci ñi nekk Parcelles Assainies jëm ci nekk Rufisque jëm ci nekk feneen ak feneen te di wax tamit ni administration bi monsieur le préfet lañ leen di sant mooy communication ñun entre ñun la biir sénégalais nañuy waxtaan di wax ak nit ñi gis naa liggéey bi nga xam ne sous préfet bu Rufisque mu ngi koy def ñëpp ko gis mooy dem fekki population yi dem fekki ambulants yi communiquer ak ñoom dem fekki département yi communiquer ak ñoom loolu lu war na diggante ñun ak ñun kon ñoo ngi jéggalu xam naa ni kàddu bi eggul fépp ndax amuñu ko parleur fii te ñëw ma ci meeting politique dama ñëw fii en tant que premier ministre donc ci liggéeyu état laa nekk xalaat su ma woon mi dinañ ci fekk lii waaye li am solo mooy message bi ñu jàllale ko nga xam ni li ñu sant préfet di ko laaj maire bi di ko laaj composante yëpp mooy nañu toogaat ak ñëpp ñu waxtaan pour ay solution de remplacement évaluer les impasses te ma ñëw ànd ak ay Aïda Mbodj nga xam ne moom moo yor DER muy délégation bu l'entrepreneuriat rapide mooy kuy ut entrepreneur ñii ñooy entrepreneur yi jël nañu xaalis di ko jox ay nit yoo xam ne parce que ay militants lañu rek musu ñoo liggéey nga xam ne jàng na liggéey xam na ni muy liggéey commencé woon na liggéey bi kenn jàppale ko kooku financement mu war a mën a dem moo tax di dinañ leen recevoir waa DER dinañ leen recevoir madame Aïda Mbodj na leen recevoir ngeen toog waxtaanee moom ñu xool bi ngeen di jàppale aussi ci ay financement gannaaw solution boobu ñu dañ ko def ci ay place ngeen mën a toog liggéey ni mu gën a rafetee di masawu riverain yi di masawu commerçant yi waaye di masawu mairie bi ak administration bu leen gërëm leen sant asalaamaaleykum jërëjëf. ñu ngi doon suivre ñu ngi doon suivre en direct moo tax ñu doon tàcc